Euh, opération bi li tax ñu def ko parce que démb la honorable woo ne ma major il faut nga ñëw fi au niveau de la commune de Mbambilor nga nga intervenir parce que leur garab ici à Mbambilor lolu moo tax ñu ñëw bi mu bi mu waxtaan ak suñuy kilifa ba pare euh, aussi ñu jox ñu instruction euh, jox ñu ay moyens pour ñu ñëw fii Mbambi commune Mbambilor précisément dans dans le village de Gorom 2 pour euh jëm fagal gar doomu jàngo bi nga xamné mu ngi def ay ay ñaw ay ay ay ay dégâts. li ñu indi nii matériel am nañu indi na appareil yu bëri ah agents yi aussi euh, ñu ngi fii am nañu appareil grande bi mu ngi fii am na oto yi am nañu ay motorisés yoo xam ne dañuy fas yéene dugg ci kër yi nga xam ne affaire yi attaqué na leen euh, pompe également mosquée yi ak jàkka yi nekk ci kii bi euh, aussi oto yu yenn oto yi dugg ci artères yi loo xam ne kii rek ñu jëm ko faagaagal parce que soo xeexee koo xam ne gisoo ko fu nekk nga koy yaakaare moo tax aussi du ñu bàyyi dara foo xam ne yaakaar nañ ko foofu dinañ fa jaar incha département bi wax ko commencé na opération bi donc motax aussi mom il est au courant de ça dañu commencé commencé depuis kérogo à partir à partir de à partir de de Rufisque légui nak ma ngi ñaax yenen maires yi def comme honorable euh def ni woo wa Saint-Louis di Diène ñi nga xam ne loo xam la lo loo xam prévention ñom ñoko yoré parce que do wax mbass mi té te waxu waxu waxu ay ay ay mesures d'hygiène individuelles et collectif li yépp hygiène la donc lolu dañu ñaaxaat euh, population bi ñu respecter ces mesures

du département biig rek la ci wax ak mom. Bima ci wax ak mom mu répondre favorablement ne ñetti fan dina ko def ci sa commune kooku nak amuñu PM mais li tax ñu commencer Gorom 2 moy dañu bari ay cas Amna ñak nañ fi wara tolok juroomi nit yo xam ci pandémie bi Tay bo démé ci kër gi kër yi amna ño ñoo ñu ngi tëdd ci biir kër yi mo leen dal mais kon jot na nag ñu jéem and ak service d'hygiène pomper dëkk yi pomper kër yi pompe jàkk yi pon pompe jumaa yi marché yi ñu pompe ko ñaan nit ñi nañu wàññi daje yi ñuy daje yu inutile yi bi ci des mooy ñàkk yi ñëw na nañu dem ñàkku ji nañu dem ci poste de santé yi dem ñàkku ji